wuy ji yi matee xam nga conditions yi mooy lan. Mm-hmm. mooy déjà premièrement est-ce ce que yéen Macky Sall mën na leen matal ay conditions euh, moom du respecté kàddoom. non xam nga Ousmane Sonko dafa bokk ci parti parti lu muy décider ak moom ñoom ñoo ko xam mais man dama ni man. Mm-hmm. sama jëmmi bopp man. Mm-hmm. dialogue yi fi président Macky Sall yëpp def. bu ci dul naxee mbaay dem naa ci. te tey fii Sénégal toll. ñu ne ci daanu. dëkk bi nar a xale yi di génn di dee. Mm-hmm. ñaar a am. Mm-hmm. jàmmarlook mag sàll mm-hmm. wala naxtaan ko waxtaan ak moom. man maa ngi woote ci jàmmaarloo bi. Sénégalais yi nga xam ne bëgguñu jalo nañ génn xeex. ñaar rek a am de lii nga yor ma moom ko. bu ma ko bëggee dama koy foqati. wa ilaa mënuma ko foqati. ma fexe ba nax la nga jox ma ko. dëgg la. bu nekkee sama alal nga moom dama war a am fulla gu toll ni mhm. jël sama alal parce que maa ko moom Sénégal mhm. ñoo ko moom suñu élection ñoo ko moom président Macky Sall moomu ko mhm. kon bu ko téyee ngëpp ko ci loxoom dañ ko war a foqati foqati bi mooy buñ ko wootee kenn ku ne bàyyi la nga doon def nga ñëw ca rassemblement bi bu la kenn jiitu bu fekkente ne mënoo koo foqati nag ah ñu ne am na pexe bu mu munee moom bañ a di rey nit ñi génnee prisonniers woote ab dialogue ñu ngi xaar ba xam fu mu jëm. mais quel yan mooy seen condition pour dialoguer yéen. non loolu du man maa koy wax parce que comme li ma la wax man ci sama turu bopp mën na maa wax. Mm-hmm. mais foog naa ci coalition laa bokk. Mm-hmm. coalition bu ñu demee ba lii jàll. ba président Macky Sall delloo ñu suñu élection. Mm-hmm. mu jox ñu suñu date élection date bi dañuy dem élection te muy lu ñu gënal delloo ñu suñu lu ñu moom mooy suñu Sénégal gii ñu nar a taal def ko doomu jox ñu ko. takk ay bagaasam ñu xool lan mooy condition parce que wax naa la ko sànq ci sama njëlbeenu wax dafa am ay nit ñu ñu boom dañ leen war a enquête xam ku leen rey. Mm-hmm. nit ñooñu ñu boom. Mm-hmm. bañ a waxtaan ak Macky Sall delloosiwu leen. kon ala kulli àll il faut mbir mi dañ koy leeral. kan moo leen rey naka lañ leen rey. Mm-hmm. seen i famille ñu indemniser leen. les prisonniers ne naa la dañ leen war a génnee. nee naa la tooñ yi ñu fi defoon dañ ko war a réparer. nee naa la alalu senegal kenn du ko négocier. bu loolu weesoo nag. dëgg yàlla. jàpp naa ni kenn ku nekk ci ñun di nga matee li nga doon. waaye man li may bañ rek mooy lii ma gis fan yi te ci foofu lay tëjee mooy damaa gis lu ma jaaxal. mooy ñoo xam ni barki démb dañ doon yuuxu ñoom ñëpp di expliquer dialogue dafa baax. waaw. waaw wow dañoo war a dialogue ji réew dialogue moo koy def va-t-en guerre extrémiste ñi ay nitu fitna la ñu. Mm-hmm. waaye léegi ñoom ñoo njëkk a àbb seen i micro kenn ko naan daw naan daw ma. Mm-hmm. waaw lu fi changé. la nga wuy woon démb te nga ne dafa baax. ba tax lii ñu tabax muy yeewu askan bi. ngeen toj ko màbbal ko rajaxe ko. doomu ndey yi nekkaat ay adversaire jamante paaka yi tuur sa deretu frère. tamante dëmm ci espace public bi. ngeen xar opposition bi ñaar. dem ba palais de la république mu naan leen ñaan leen ma ko ci njekk di leen kokkale kii xëbbatal loolu yëpp fi leen fekk bi waaye léegi ma ne ña demoon wuy ji loolu lu tax ñuy xataraay kenn ku nekk naan dematuma lu xew yoon da leen arrangé wul peut-être ah, kon kon arrangement lañ nekk <coughs> mooy différence bi euh. arrangement ak dialogue du benn mhm. ku ku ndobin rey sa maam nag boo gisee lu ñuul daw boo duggee ci ab ruq defante ak nit lenn li da ngay jàpp ni kenn ku ne noonu la koy def am na beneen expression bi duma ko wax dafa xaw a tegginiwul ci kanamu imaam mhm. waaye léeg-léeg léeg-léeg léeg-léeg picc bu nekkee ci pénc ah. bu ko dara dalee day wut moroom bukki bu lakk taat waaye ñun tolluwuñu ci loolu parce que jikko yi duñu benn mm-hmm. te tamit liñ teg ci table bi du benn parce que ñun mm. gëm naa ni ku ñu ne yow doo bokk mm-hmm. nga ne waa baax na mm-hmm. am naa candidat awma benn de am naa fukki candidat juróom ci man juróom ci ñi may àndal ñu ne ko yow téye nañ la waaye jàpp bàyyi nañ sa benn candidat. Hmm. mu ne acca ngemb naa ko. Hmm. defi vidéo mbarki démb te tey ñëwul. Hmm. daal di ne buñ ci tolloo. jàppal leen ma diw. waa kooku xam nga ne naa bokk tax koo jóg. kooku naa bokk tax koo jóg kooku man mënoo moo moroowoo moom ak moom déedéet. mënta nekk kuy moroowoo ak moom dangaa ngaa juum. fii ma ne fii ay dileer ak ay magouilleur ku ne xam nañ sa moroom man nag xam nga lan lay bañ. man bëgguma nit ki ma jàpp ne ma mag yow a yem maag yow yem kuñ ko wax ku ne parce que jamono ji daf mel loolu la ñuy bëgg a ut ndax dégg naa ñu bare nag ñu yor seen ay làmmiñ politiciens yi jaruñu ngeen di xeex gis ngeen dañuy waxtaan ci ay ruq tey ñii ñu libéré ñu ne waxoon nañ leen ko ku dee yaa perte dama ni sénégalais yi nanu takku ndaxte ne gis nga nag sa droit. Mm-hmm. ñaar rek képp la koy may. dëgg la fulla ak fayda. wala nga neex làmmiñ. dëgg la boo mënta neex làmmiñ ba wër nit ñu wax leen ba wër leen jox la ko. Mm-hmm. amal fulla ak fayda taxaw temb jël ko. Mm-hmm. suba. le 16. ñu bare woote nañu nag. waaye woote yépp dafa mel ne place de l'Obélisque la. Euh, F euh, front de pour la défense. de la démocratie. woote nañ. dégg naa tamit waa ñeneen woote nañ. xale yi ci boppam sa sénégalais yi woote nañ hmm. lu ci mën a ne dama koy wax saa su ne suba nañu góor góorgóorlu dajale initiative yi te dajaloo continuer di taxaw même si c'est pas autorisé ndaxte gis nga lii ñu may hmm. bàyyi bu ndiggu ndiggu yi ngay gis nii hmm. du caaral ak wax ju bare de du caaral ak wax ju bare li ñu ko may mooy sunu taxawaay nañu continuer ci sunu taxawaay nañu kon ci sunu taxawaay. Mhm. nañu gën a farlu suba nañu gën a tuur ci mbedd yi. Mhm. man dinaa may tenue militaire bu bees. Eh. <laughs> tenue boo xamante ne maa ngi ko dencoon boobu ba léegi moom laay génnee suba. ko complet eh, nanu pare suba nu génn. Mhm. décorer tenue yi bees yi. ko amutoon tenue wutil tenue. ñoom imaam ñoom ñëpp am nañ moom ñëpp tamit tenue. imaam bu na ñëpp génn. imaam sama imaam di xam nga lu loolu. parce que xam euh. yi ndeysaan danoo baax. Euh, suñu xol yi dafa gaaw a naay yi. Mm-hmm. tey fi ne nii libération yi mën naa fees suñu xol yi. ba ñu ne. Mm-hmm. jaratul xeex dama ni. tamit mu ngi ràcce jàmm tamit. président mu ngi bàyyi gis nga Berlin. Mm-hmm. est du ngeen ko ci fekk si. gis nga israélien ak yi sama benn kànk ki ma doon waxtaanal. ku baax. moo ma ko jox anecdote boobu nee na ma mm-hmm. Mm-hmm. dañuy xeex ba nga foog ne tey la dee ñoom ñëpp mm-hmm. ndekk te ña ngay waxtaan ba nga foog ni dootuñu xuloo dañuy xeex suba ndax président Macky Sall lu président Ousmane Sonko waxoon na ko nee na xamul lu du rapport de force eh. xamul lu du rapport de force gis nga mbedd mi bu xale yi di jax-jaxee rek ëpp ko ñoo communauté internationale jël seen lub bi baraake ko teg ko mais yéen dafa ngeen di kookali yéen yéen moom ci kookali ngeen. dañoo moom eh? dañoo moom la du loolu du loolu c'est parce que ñun dañoo topp démocratie. Hmm. mu jël démocratie sànni. ñu topp justice mu jël justice ndax say waa léegi mbedd mi lu mu la mayul du la du leen du la ko may. ñu topp kilifa diine waxuma nag ne waxuma nag ne waxuma nag ne waxuma nag ne bu lépp continuer nañ topp mbedd yi. Hmm. parce que wax naa la sànq ne mhm. la. tamit kuy xeex ba am li nga bëgg. Mhm. da ngay mën a taxaw. Mhm. dëgg la waaye nag amaguñu lu ñu bëgg. parce que ñii ñuy bàyyi ñëpp. wax dëgg yàlla ja li taxoon ni jàpp leen. Ousmane ko taxoon. dëgg la waaw léegi Ousmane ko ba tey mu ngi ci kaso wala génn na. waaw bu génnee ma wax dëgg yàlla suba mën naa wax ne xale yi. bu Ousmane déedéet du toog leen de. Ah. dañuy changer xeexin bi dañuy génn. parce que nag il faut nit ñi xam ni du jëmmi Ousmane Sonko tax ñuy xeex mënti demee da ngeen di xeex. Sénégal mooy tax ñuy xeex. Mm-hmm. te Ousmane Sonko laa la wax. Mm-hmm. bu génnoon suba te président Macky Sall delluwul ci lii mu nekk. Mm-hmm. mooy njëkk a woote ne continuer leen xeex. dëgg la xeex nag xeex la. yaa ngi dégg. dialogue bu sincère. bu dëggu yàgg naa am Sénégal. mësu koo def nag moom président Macky Sall. ñu ngi koy ñaanal guléet yal ko yàlla dimbali. ba ximmaliku gi mu mel ni da koo xaw a ximmaliku nii mu doon gu dëggu ci moom te bi bu yeewoo yàlla bu mu nelawati te nag bu mu xalaat ne li xale yi di wax mën naa dox ci suñuy xel bu mu xalaat ni mën naa dox suñuy xel mm-hmm. ndaxte nag fii ñëpp a yeewu kenn dootul nelaw tey ci imam mm-hmm. dialogue bi waaw mën euh, dialogue bi xam naa ni ko may mën a waxee mm-hmm. euh, dama koy rafetlu bu baax a baax mais dafa am benn point boo xam ne